déedéet bolo gi da nga koy jël. waaw dinaa ko jëlal atia yëkkati bolo gi. man Talla Sow. maa sàcc bolo gi Touba ci kanam. ñu ngi koy jaay taw ma ci mhm. nag. képp ku ma ko jaay. ma mhm. xam ne joxuma la bolo gi Touba ci kanam. foo jëlee bolo gi mhm. ci benn oto laa ko jëlee woon. ci jumaa ji. ñaata point ñaata point nga amoon ci marché bi. ñaata point bari na ma wax dëgg yàlla. ban tur nga leen waxat man. xaalis ba ma joxe Saliou Mbacke wala Talla. Saliou Saliou lan. Saliou Mbacke. kan nga kan nga joxoon moo nekkoon sa waajur yow. man. Hmm. joxe woon naa sëñ Abib mooy doon sama waajur. man. mii nii mu Touba ci kanam. waaw ah. jàppoon nañ ma ci sax ba yóbbu weer nga def prison Mbacke. prison def naa fa juróom lu la fa yóbbu woon. problème mu xaalis Touba ci kanam bi ma fa yóbbu woon. problème xaalis lan. sa bolo gi Touba ci kanam. lu tax nga jëlaat ko kon nekkaat ci marché bi. dara. Hmm. dañ laa génne. dañ maa génne ma tekki ñeenti fan ma génn. léegi lii ku la ko defaral. lii nii ku ñuy wax Xaadim Diouf. Xaadim léegi Xaadim Diouf mi la ko defaral loo koy wax. Xaadim juuf ak man Xaadim Xaadim man lii ma la ko lii maa ngi la ko defaral waaye bokkuma ci Touba ca kanam. amoo ci ndigal kon. amoo ci ndigal waaw léegi Xaadim Diouf bu la ko defaralatee moom xam na li ko ciy fekk. bu ma ko fekk. ak keneen ku ma xam na li ko ci fekk. kii Xaadim Diouf mi ngay wax fu nekk. kii xam na ko. Xaadim Diouf fu mu nekk. centre commercial Sëñ Fall. lu muy liggéeyee Xaadim Diouf. Xaadim Diouf ay photo yooyu lay defar. waaw.